seen dundin nañ ko xoolaat mooy nañu serré ceinture fañ doon jox benn ministre ñett ba ñeenti oto nañu wàññi numéro oto lañ koy jox. bañ ko doon jox carburant lu toll ci 1000 litres d'essence nañu xool nan lañ koy wan a wàññee voyager nañu xool nañ ko mën a wàññee serré ceinture gab yooyu yëpp ñu jël wàññi ko nag nañ ko dugal ci li nga xamante ni mooy le changement structurel bi nga xam bëgg nañ ko def donc amul beneen solution boo xamante ni rek tey ji war nañ ko mën a def budul loolu. parce que dette bi mënatoo kaa parce que UEMOA taxaw na di la bu baax a baax beneen bi fiscalité boo ko laalee di nga agir sur prix donc loo tamit mënatoo kaa laal donc li la dese rek mooy sa train de vie nga xool nan nga ko mën a wàññee ba génn ci impasse bii nga nekk. li li gën a am solo mooy nañu fexe ba sa population bi sentir ni lii wàññi nañ ko bu baax a baax. lool nag pour mën a am dafa am ñaari mbir yoo xamante foog ñu xam ko ñoom bu ci njëkk bi mooy loo xam ne ci ñoom la dépendre duñ tuddee ay variables endogènes. sa réew nga koy defaree am nga ci mainmise mais beneen bi ay variable exogène la dépendre ci yow lu si mel li ngay importer pour defal sa mburu lu si mel ni ngay importer pour defal yeneen denrées yi dépendre ci yow